moo tax feeg yaa ngi mën a sàcc feeg yaa ngi mën a wax lu dul dëgg feeg yaa ngi mën a dem ca sabar yaag boîte de nuit yaag nangam ak nangam ya maanaam barabu mooy kaay yàlla ya feeg yaa ngi koy mën sa imaan sa gëm yàlla baaxee ko feeg yaa ngi mën a détourner kees lekk alalu askan wi sa ngëm yàlla baaxagut sa ngëm àllaaxira baaxagut moo tax kii comportement bi muy yor mooy comportement bi àdduna soxla muy honnêteté maandu dëggu njub moytu ak moytu ak li luñ la dénk la ko laajee fekkat xam naa ñi éducateurs yi yëpp loolu lañ soxla ci seen i société ngëm àllaaxira mii nag moo koy def ci nit akay ko soxla ci sunu jiit yi tey commencé ko ci sunu maire yi suñu maire yi communes yi akañ ko soxla ci ñoom gëm àllaaxira ba dërëm bu ñu la jox nga investir ko ci société bi buñ la xoolee ah, la amul problème te day jëlal quatre-vingts pour yi def ko ci fonctionnement buñ la laajee nga ne fonctionnement lekk na ko vingt pour yi nag nga jël ko investir da ne mukk cotisation wu bi la ñu jox ma ko pour ma investir investir ko ci luy jëriñ société ak ñoo soxla maire yu mel noonu ak ñoo soxla waat encore ay ministre yu noonu rawatina nag ministre yi ñuy dénk suñu finance waaye itam ak a ñoo soxla président yu noonu nga xam ne gëm àllaaxira waaye taxaw ci seen xol di dox seen diggante alalu askan bi ba duñ ko laal duñ ko pasar pasare moo tax iblis bi mu ñu bëggee sànq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 صلى الله وسلم ورحم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أيها الإخوة المسلمون أتشرف بالتوجه إليكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجيا المولى عز وجل على أن تكون هذه الجهود المبذولة من قبل الشباب مقبولة عند الله تبارك وتعالى وأن تكتب في موازين حسناتهم وحسنات أوليائهم يوم يلقونه إن ذلك على الله يسير فما علينا إلا أن نسعى مباشرة إن شاء الله في معالجة الموضوع وهو موضوع أهمية الإيمان بالموت بمعنى للحياة الآخرة وما لها من آثار على سلوك الإنسان alfardiyi waljamaayi mbokk yi gannaaw bu ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp ak waa tund bi ñi fi daje ak ñi amoon yéene ñëw te mënuñu ñëw waaye di beral ci nuyoo bi yilimaani dëkk bi ak maamuum yi ak chef de village bi ak notable yi koy jàppale di nuyu góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nangu kër kër gi lépp luñ fi def ci coono yàlla ñu ko suñu borom nangul bind ko ci suñuy balance yi jëf ëllëg ku ñuy dajeeg moom euh, bala ñoo commencé nag dañuy jaale tund wi yëpp ñi fi manqué sunu gannaaw rawatina ñaar ñi fi gën a euh, beesle ab dëj muy sunu mbokk Abdourahmane Faye dana ko yàlla yërëm di jégal ko ak euh, sunu mbokk te mas fay mas moom yàgg nañ koo xam lool sax dafa yàgg lool ci liggéeyu islam moom itam yal na yàlla yërëm yépp di jégate eh, jotaay bi yal na yàlla gaaral leen ko ci yaakaar lool yal na suñ borom gaaral leen ko ndax loolu day bokk ci li leen di bégloo foofa ñu nekk lii dalal seen xel ci ne liggéey ba kat ma dem sunu mbokk yañ bokkaloon waar wa kat wuccuñ waar wa ña ca ko defee kon ñi jiitu jaar na ñi di leen bàyyi xel ci jotaay yu mel nii bàyyi jaar na di leen bàyyi xel ci jotaay yu sofaanoog yii ndax da di indil ak maanaam xel mu dalal fekkonte ne tey lii ak sabar la wala tere wala muy yeneen géew yi caaxaan yi nit leen ko gaaral fañ nekk dageen seen njaboot dakat nekk ci lale yàlla bum ne nag ñoo leen ci yoroon loola lu diis lay doon ci ñoom kon nag alhamdulillah ba suñ borom dogalee ci dogalam ci liñ xam ñun gannaaw bu ñu bu ñu wanee gannaaw boobaak léegi yaakaar naa ne ndaje mu am solo mi fi njëkk a taxawal gannaaw fañ leen doon ñaanale mooy lii lii nag kon yàlla fi sax yàlla jëm kanam ah, yàlla yàlla boole seeni ruux ñoom ñaar ñëpp ak mboole mooy jiit yi ak arwaxul anbiya والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن waxtaan wi ñuy waxtaanee tey mooy gëm faatu ak la ca gannaaw faatu ngëm googu yan jeexit lay am ci comportement wu doomu aadama bi yaakaar naa loolu mooy waxtaan bi incha allah doomu aadama boobu nag en tant que kenn mbaab famille mbaab société mbaa sax la jiite société muy état gëm àllaaxira gëm faatu ca na ko alquran gëm lu jën jeexit lay ci comportement wu góob gëm faatu ak la gannaaw faatu dem gëmee ko ca na ko yàlla gëmloo ñun ñëpp xam nañ ne gëm àllaaxira ponk la bu bokk ci ponk yi ngëm yàlla yi subhaanahu wa taala al imaanu bil yawmil aaxir min arkaanil imaan wa aqidatun min aqaaidil islaam al ponk la bu bokk ci ponk yi ngëm yàlla subhanahu wa taala waaye it la bu bokk ci pas-pas yi lislaam yi nga xam ne ñooy cosaan yi taawu lislaam euh, gëm faatu ak dekki gëm àllaaxira mën nañ wax ne lislaam ab tabaxam ci kaw ngëm googu la ko la ko teg ko defee nag gëm faatu moom ñëpp ko ko def gëm ne faatu am na kenn na sikki sàkku ci hatta ñi gëmut ne yàlla am na sax ñoom gëm nañ ne faatu moom am na ndax nag nañ ko gëmee ak ni ko jullit bi gëmee benn la loola mooy différence yaakaar naa bu ñuy waxtaanee faatu ak gëm ko bëgg a wane différence ci gëm yàlla ak ci gëmul yàlla la ni ñuy dundee ci kaw moo tax waxtaan wi buñ ko doon xaaj dañ naan danañ waxtaanee lan mooy dëgg-dëgg faatu ak euh, nit ki bu faatoo fu mu ban étape mooy étape bi njëkk étape booba ban étape moo ca topp étape bu ñetteel booba ban étape moo ca toppaat ndax gëm faatu bu ko jullit bi defee war naa xam loolu mu gëm mooy lan faatu mooy lan kon ci ñeenti étape yooyu lañ ko bëgg a teg muy gëm ne faatu am na ak lan mooy faatu ak nit ki bu faatoo fu muy njëkk jëm gannaaw bu jógee foofa fu jëmaat gannaaw bu jógee ñetteelu étape boobu fu mu jëmaat loolu bu ko nit ci demee yan jeexit lay def ci moom lay def ci dundam alhamdulilah kon faatu mbokk yi euh, tuxu la am na ay aspect yu bari yu koy wane fii ci kaw suuf ne faatu tuxu la rek ci étape dem ci beneen étape bu dee jullit dafa jógee ci kërug coono jëm ci kërug noflaay dafa jóge ci ay jafe-jafe fekki ay yomb-yomb dafa jógee ci kër gum nekkoon doon liggéey war a fekki fayu fayooru fayooru la doon liggéey loolu mooy faatu kon faatu jeex mu wuuteeg nag ñi gëm ne faatu jeex la ñoom dañ doon tuddee démb ak dahri yuun fi la ko yële bu fekk sallallahu alayhi wa ñoom firaw na noonu lañ gëmee woon dañ doon wax ne euh, wamal xayaatu dunia illa lahwun wa laib ñoom àdduna mbóosóor lañ ko jàppee woon loo fi mën a bànneexu bànneexu moo tax alquran net li ko ci suuratul jaasiya di wax ne namuutu wa naxyaa wa maa yuhlikuna illa dahr baatub dahr boobu ci lañ jëlee dahri yu boo ci bëggee mbooloo nga ne dahri yu maanaam dañuy dund comme ni xobu garab yi dundee rot ci suuf wow benn jur lekk ko mbaa ñu joggi ko mu soppi kuwaat suuf dellu ci biir suuf jeex na pare na am na ñu gëmee ñu ba tey ñoom lañu tuddee les matérialistes pour àdduna fii am na it ñu gëm ne dee am na waaye nit ki bu faatoo dafay tuxu itam ci beneen dund buy manifesté léegi fii ci àdduna loolu it pas-pas la Uh-huh. boo demee ci réew mu mel ni Inde danga fa gis rab woo xam ne duñ ko laal dañ naan lii dafa sacré lu mel ni nag fa am pas-pas yu ca am mooy seeni mbokk lañ ay doom aadama lañ yoo xam ne dañoo faatu woon transformé nekkaat nag moo tax ñu ne ñoom duñ ko lekk mais am na ñu leen gën a yaatal mbir mi ñoo xam ne dañ naan sax pasak nagak xarak bëyëg lépp loo gis ci kaw suuf rek ba ci garab sax cosaanam mën na am nit la woon sa la woon wala sa baay la woon dafa liggéeyoon liggéey boo xam ne aji bind ji gërëmu ko moo tax bi mu bi mu ko faatee soppi ko garab mbaa am mbaam wala leneen ak leneen pas-pas boobu it am na ñu ko gëmee noonu ndee pour ñoom ndee amul àllaaxira yuy ñëw ëllëg waaye fii lañ lay àttee léegi fay la sa jëpp bu fekkee ne ku baax nga woon boo judduwaatee nekkaat nit waaye nit ngay doon koo xam ne dangay ngay kawee wala da am ay faveur nangam ak nangam yooyu yëpp dara du ci pas-pasu pas-pas yooyu nag seytaane da ciy liggéey dana ciy liggéey liggéey yu yu doy waar di ci nax nit pour gëmloo ko ko rek mën nga am sa doom mu faatu fekk yow pas-pas bi nga am nga wutal ko màndarga ci nopp bi wala ci lex bi wala ci jëb bi seytaane ma ngi xaar takkam jay ñëw bu ñëwaatee mu defalaat ko même màndarga bi ñu juddu judduwaale ko ñu ne kon ka moo dégg si yooyu yëpp ay pas-pas la ci ndee yoo xam ne bokkut ak lii ndee ndee dëgg ci ci alquran ak sunna nit ki dafa composé woo ci bakkan ruux xel xol jëm boo faatoo sa ruux googu faree ci biir moom la suñ boroom di toxal bu toxoo nag benn mu jëm ci këru way baax ya wala mu jëm ci këru ña nga xam ne dañoo sàggane woon seen dund na muy tuxoo it suñ borom subhanahu wa taala nett ci askur wala sax lu bëri borom war nit la koo xam ne dafa sàgganoon ci àdduna yàq dundam nekk ci mooy yàlla nekk ci mu dee googu mooy dee gi gën a métti ci xeeti tey dana jël mosal ndax kooku du waajal lenn fam yëpp jël fam fam jëm maanaam waajalul àllaaxiram dara gëmul sax ne am léppam àdduna la xëyam àdduna la koy jox ngontam àdduna la koy jox bànneex mooy yitteem dundal bakkanam képp mooy jiite dégluwut boromam jaarul ci ndigleem baalalut ay tereem àdduna lay xëyal moom lay gontal lu mu am tabaxee na ko àdduna ci loolu nag lay dem ba bee ba dee gane ko bett ko lool ne boobu mooy néew jëmm joo xam ne ma ngay teqali foog la mu gënoon a bëgg muy àdduna benn maskat la bu raglu ndax nit ki lim gënoon a bëgg joxoon ko dundal lépp bis ni ci tey moo ko bàyyi bis ni ki tey malaayika ñëwal na ko commencé di ñot ruuxut yi di ko jëlee ci biir yaram wi buy génn day mel ni ay paxas yoo xam ne dañ koy ñoddi ci biir jëmmam ji mu ànd ci dégg ñu calus ci gàtt xelam di daj adduna gi ak lim ko bëggee woon ak lim fi tabaxoon ak lim fi wëccoon lim bëree gis ni ki tey mu teqale ko ñu ubbi ay bëtam mu jàkkaarloo kër gëm jëm muy allah muy barsax ngeen kër gëm jëm muy barsax lépp di daay bi maanaam amu fa dara lu mu fay fekki ci lu baax lu la fay fekki tartar rek la fay fekki mettit rek la fay fekki mbokk yi génn àdduna yëpp googu ci gën a moo tax kii bëgg na bëgg yàlla subhanahu wa taala euh, <coughs> wax ne jëmmu bu demee ba tollu fii fii muy génnee àdduna nii te xam na ne lépp mu mu koy bàyyi gannaaw fekkewu dara lu baax benn bëgg-bëgg rek la yor benn bëgg-bëgg képp la yor muy lan ma yàlla teg maa delloo gannaaw ma defaraat li ma yàqoon te ma may ma dellu gannaaw defaraat li ma yàqoon moom bëgg-bëgg boobu teg la laalli amalu saalihan rabbi rjiuuni yow sama borom te ma may ma delluwaat gannaaw laalli amalu saaliha fii ma tarak mën a def lu baax ca la ma fa bàyyi bàyyi na fa gétt yi bàyyi na fa kër ya bu dee góor bàyyi na fa soxna ya bu dee soxna bàyyi na fa góor gaak njaboot ga néeg bu mu dëkkoon ak lal yaag matériel u adduna yëpp bàyyi na bàyyi na ay compte bancaire bàyyi na fa bàyyi lu mu ciy bëgg tey ndax mooy dem mottali ci ab tabax bu mu commencé woon wala toppatoo ji ay contrat yu mu signé woon ay nit déedéet yooyu yëpp amatu ko soxla lenn képp lay am soxla muy lan irji'uuni la'allii a'malu saalihan fiimaa may ma rek ma dellu yow ma fa amoon ma daaw def ca lu baax kon mbokk yi nañ leen jëkkalante def lu baax li nga am muy occasion bi nga am muy adduna gaawal nga jëkkalante def ci lu baax bala laa bis bi di ñëw yaakaar naa bu ñuy waxtaanee barsat ak faatu lii rek li mel nii rek la ciy jëlee moo sabab ñu koy waxtaanee pour lan adduna bañ ñu nax àdduna bañ ñu not àdduna bañ ñoo jël bu demoon ba nar ñoo jël sax ñu déglu xeetu waxtaan yu mel nii xam ne nekk nii la ñu mën a dëpp gaaw bala ñoo sàkku ak dëpp te dootul jàppandi bu ko defee kon foofu loo rek lay ma defee lu baax kon nañ leen njëkkalante ci def lu baax mbokk yi nañ leen jëkkalante ci def lu baax ci dundal jàkka yi ci julli mbooloo ci woor weeru ci boo amee lu la mën a yóbbu Màkka garaw aji te ñëw ci dimbalanteeg say mbokk ci dimbalanteeg mooy néew doole yi ci jubal ci jubal jubal ci wax yi ak jëf yi ak jëflante yi ak ku ci toll fii kat lii doomu lay bëgg delluwaat àdduna defaruwaat kon nañ defaru bala ñoo bis bi di ñëwat jamono bii nag waaju sàggan ji nekkee ci xer-xerle pour génn àdduna ñu wan ko comme jëm la ko fay xaar dara baax mu ne ngee dellu si waat fii muy jógee te du mënu du mënu ndax wéy na dund dafa am ab àpp bu xasee ak si jeex na inna ajalallaahi ida jaa laa yu axar law kuntum taalamun loolu fii nag nga tolloo fii mbokk yi ñu waxaat fi ne soxna du mën a dimbale borom këram borom kër du mën a dimbale soxnaam xarit du mën a dimbale xaritam bii ba teqalikoo lii ko ñëwal pour dox digganteem ak dee bi maanaa amul genn xeetu relation boo amoon ak am mbooloo mbaa kenn mbooloo ma mbaa kenn kam man ci situation bi dara amul loolu jar bàyyi xel la kon koo àndal mu nar laa fàtteloo bis bii du soppe de bu dee kenn du soppe bu dee mbooloo la mu la nar a bis bii du soppe mbooloo ma du soppe soppe dëgg mooy ci lay fàttali bis bii di la ko bàyyiloo xel soppe dëgg mooy ci lay xirtal ci jëf lu baax ndax jëf lu baax moom la ñuy bëgg a waxtaanee léegi ci mas almasadu taani ci wàllu faatu kon soppe mooy ci lay xirtal ci lu baax ci ci al amalu saalih te moom rek nga bëgg fii laalli amalu saalihan fii ma tarakt foofu lu ko suñ borom di tontu kalla innaha kalimatun huwa qailuha bu ko sàkkoo suñ borom ne mukk kàddu la gu muy wax rek gëmu ko amatul wa min waraihim barzax foofu nag boo fa xasee jógee rek dugg nga ci beneen dund bu ñuy tuddee barzax barzax baatu araab la olof nag moo koy yàq naan barsàq barsàq mooy dundu ñetteel ndax nit ki dundoon na ca biiru yaayam jóge fa ñëw àdduna dund fii ci biti ab diir muy ñaareelu dund fii nag boo fi jógee yaa ngi jëm ci ñetteelu dund muy barsaq moo tax mu ne wa min waraihim barzaq ila yawmi yubaasuun kon yow jullit bi bi laay boobu rek doy na ci xettali la ba pas-pas yu yàqu yële yépp nga bëccu ci mooy lan duwul ne ku dee jeex na de duwul ne da ngay dee ñu delloo la ci àdduna de déedéet boo fi tuxoo barsàq nga jëm foofa nag ban durée nga fay def yàlla xam na mu toll waaye am na limite mooy ilaa yawmi yubaasuun ba bis ba ñuy dekkalee jàmm lii wane dee ak dekki nag ci àdduna kenn mënut laa wax na mu toll dafa bëri boo demee ci àll bi léegi xoolal sa bët da ngay xool bët ba mu raw ci suuf si looy gis ñax yu daanu waw yenn yi ñu lakk leen yi ci des jur gi joggi nañ leen ñu ngi commencé di jaxasoog suuf si démb lan la woon ay ñax ak i gattax yu naat taxaw yor ay gub ñoo nekkaat nee tey dee ndox buy wàccaat lépp jug jugaat kii def loolu kan la allah subhanahu wa kon ñun lay wan dee ak dekki mhm. ñun lay wan foofu dee ak dekki ku gëm ne bu tawaatee suuf si jiwu yi ci biir yépp danay saxaat boo weddee àllaaxira ak dekkal ak ñàkk xel la ci yow ak ak matadi ak ñàkk a seetlu nga yem foofu ci cuur bu dee nag nit ki nga xam ne euh, dafa gëmoon yàlla subhanahu wa taala mbokk yi mooy sofaan ba moom fii la nekkoon ci àdduna di góorgóorlu bu dee xale bu góor mbokk ya naan ko yow day booy amul chance doo gudd fan da ngaa teel a dem jàkka da ngaa teel a jël diina da ngaa teel muuru jëlal sa diina de faatu xàmmewul mag ak ndaw faatu lenn rek la xam muy lan dig dig dig nag dana ñëwal sax borom ci biiru yaayam di judduwaale ak bakkan am na koo xam ne dig mu ngi koy ñëwal ci bisub juddum dana judduwaale ak bakkan waaye ca bis ba lay faatu dellu dellu dellu dellu ci boromam am koo xam ne ñaari fan ñetti fan fukki fan semaine ba jeex ñaata yoon yow ndaw lii nga tiim sa morom ñu di ko jébbal boromam ñaata yoon kon bu la saytaane mën a nax ba nar laa sànkuloo ak ndaw bañal gaawal jëm ci sa borom yow ndaw lu góor li yow ndaw lu jigéen ñi gaawal njëkkalante jàkka ya gaawal bokk ca julli juróom ya gaawal fàggu tiyaabo yooye ñu cay fàggoo ndax kat boo jullee ci sa biir kër kee romb la dem ca jàkka ja julli ji ëpple na la ñaata yoon ñaar fukki yoon ak juróom ba juróom ñaar ba lu sob suñu borom kee moom tàyyal na jullee ca biir kër nga benn la ñaar fukk ak juróom boo ko fulee juróomi yoon ci bis bi ñaata la téeméer ak ñaar fukk ak juróom bu doonoon ay milliards dañ naan kii par vingt quatre heures loolu lay fàggu téeméeri milliards ak ñaar fukki milliards ak juróom keelum fàggu juróom mooy kay jullee ca kër ga waaw ka julliwut nag kookaay ki perte ki jullee ci biir këram tegee ca waaye kee mooy ki leen nax kee mooy ki jël dundam jëmee ko fi ko amal njëriñ kon mbokk ndaw ñi daw leen ngeen dundal jàkka ya jaamu yàlla ak yokku la kenn mosta dégg ak jaamu yàlla ñu ne ak wàññeeku la mukk dalay defar fii léegi ci àdduna dañ ci gis dara ci ci phénomène yi ñëw ci kanam insha allah defee kon kii nekk ci jàkka yi di góorgóorlu ci woor bu dee ndaw lu jigéen ma ngay góorlu ci garder boppam baaxal ay jikkoom comportement ya jël muuraayam ak luñ ko saboote saboote nag da ngay niru magat mu ne waaw baax na da ngaa teel mu ne waaw baax na rek jëlal sa muuraay rek balañ laa muur bis dana ñëw ñu muur la te bu fekk bu la fekkutoon ak muuraay nga yàlla gërëm muuraay ñaaral googu du baax ko defee kon ñii nag nga xam ne ñoo jëloon seen dund def ko ci lu suñ borom gërëm bis bii bu leen ñëwalee lu sukkuraat sa métti métti métti métti nit ñi di ko gis naan ah moom day sukkuraat sa metti na waa loola mooy la nit ñee gis waaye suñ borom mu ngi koy wan meneen bi yàlla ku yéeme la suñ borom yebal na ay malaayika ci moment yii mu toll ñuy dindi ruuxu gi muy métti lool ci yaram wi waaye suñ borom a ngi koy wan loo xam ne fàtteloo na ko coono bi muy malaaka yi ñëw di ko wax ko inna allazina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim malaayika allah taxaafu dal leen rek seen njàqare fii la yam wala taxzanu bu tiit fa ngeen wa abshiru bil janna gis nga kee luñ bañ ubbee bët yee lu mu gisoon ak daay sawara yal nañu ci yàlla musal kii nag wa abshiru bil janna buñ ubbee bët bi lu muy jàkkaar lool aljanna fa mu jëm la ko suñ borom di won moo tax nit ki bu tolloo foofu seytaane du ko mën a fexeel ba jàpp ko du mën ci moom dara ndax malaake yi ñëw di ko dalal ubbi ay bëtam di ko won fam jëm wa abshiru bi janna allati kuntum tuadun tekke naa nahnu awliyaukum ñun ñii di malaaka yi ñun la suñ borom yebal ñooy seeni partenaire ñooy seeni allié fi lxayaati dunia wa fi l axira adduna wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum fa ngeen jëm lu ngeen bëggal leen fay xaar koom lakum fiha ma taddaun lu ngeen fa soxla rek woote woote leen ko mu fekk si leen nuzulan min gafuur loolu mooy nganaleeg suñ borom min gafuuri rahim kon mbokk yi faatu du jeex faatu du dekkiwaat ndellu si fii ci àdduna léegi déedéet faatu déplacement la benn nag nga jëm ci mbugal yal nañ ci yàlla musal wa illaa nga jëm ci noflaay yal nañ bokk ci ñi nga xam ne buñ tuxoo ci noflaay lañ jëm sunu mbokk yi jiitu yëpp heure bii yàlla fekk na ñu ngi ci noflaay heure bii yàlla fekk na ñu ngi leen di exposé liggéey bii faj nekk loolu ak yeete la woon rek ci jëmmi lan mooy faatu bu nu kenn nax ba nañu fii la bu fi passé amatut dund amatut mukk fii dund bu passagère la bu tuuti la boo xasee tuxu nag ba sàq kenn ku nekk fekk na liggéeyam diire boobu yàlla xam nam toll loo fay nekkee boo demee ci téere bu ndaw wala bu xaw a diggu dóomu bu ñu tuddee ar risala ma ngi fay bind di wax ne wa arwaaxu ahli saadati baqiyatun naimatun ila yawmi yub'asun ñi nga xam ne dañoo texe seeni ruux buñ tuxa fii dem barsàq beneen dund la fekk dund booba fa sax ci ay jàmm xéewal lépp lu bakkanam bëgg suñ borom dik ko fa ba bis ba ñuy dekkal jam ña mu nga ilaa yow waaye bu fekkee safaan ba la yàlla nañ ci yàlla musal waar waawu ali shaqaawa baqiyatun muadabatun ilaa yow mi ibasu ñoom it ca safaan la ñuy nekk muy mbugal ba ba ñuy dekkal jam moo tax xéewal goo mënoon a am ci àdduna benn fanu barsàq fàtteloo na la ko ana xéewal bu doonoon milliard anam bu doonoon ay xarit ak i am di jàmm mbooloo mu bari mu lay wër di la wéttali la nga nekk yu yow képp ak sa jëf loolu bàyyi xel la gannaaw étape boobu nag di benn mashhad min mashahid yawm al qiyama la ñuy xaar ñun ñëpp mooy bisub dekki comme ni ñax ñii di dekkee noonu la dekkee bis booba it bu ñëwee kii lépp lu mënoon a nekk ci xéewal day yokki day yokku waaye ki yàqoon ab dundamit lépp lu mënoon a nekk ci mbugal day yokku ci kon mbugal am na barsàq ga xéewal am na barsàq waaye par rapport ak fañ jëm day mel ni fii amul woon xéewal fii amul woon mbugal mm-hmm. moo tax bis boobu di ñëw nga xam ne ci la suñ borom subhanahu wa di tukkal adduna kenn dootu fi des moom it benn mashhad la ñu gàttal ko rekk tënk ko ci ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam toog na bis ci masjidul madina ba ca kanam mu tëdd noppalu ci leeso bi tëddoon banti banti leeso bi marqué ci legg bi ci yaram bi kon xam nga ne leeso ba wow na bant yi itam nooyuñu xaw nañoo dëgër marqué ci legg bi Umar ibnul Xataab ñëw seetsi ko nuyu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg jox ko loxo Umar xool legg bi bant yeeg ñu ngi ñu ñu ngi ci marke am na sax ñu wax ne Umar dafa am naqar ba bam feeñ ci xar kanam bi ne ko ndaxam de jamono bii ngay tëdd ci leeso yi nii muy marqué ci sa legg bi wow koŋŋ nii buur ya nekk ca Perse ak buur ya nekk ca Byzance muy bisante yi ak persan yi seen buur ya ñoom day ña ngay tëdd ci ay gongu yoo xam ne dafa nooy nepp yu noflaayu te ñoom gëmuñu lu dul àdduna yow yàlla yónni la ngay tëdd ci leeso yu wow yii muy marqué ci sa legg bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Omar mbaadu mbaadu dangaa bëgg sikki sàkka maanaam mbaadu sikk dalaa dab mu ne ko fii ci àdduna ba ma suñ borom subhanahu wa taala xamalee ne dund bi day jeex xamal ma itam ne ma malaaka mi warawal bufta bi àdduna tukki wal na bufta ba maanaam sex na bufta ba ngeen baal ma dëngal na jëba jëm ca bufta ba di xaar ndigal walal mu wal loolu képp ñëpp des bi mu ne ko ndigg si lu ma fi wutee bànneex xaju fi waaye nag foofu yow yow noonu nituk àdduna ki mën nga fi jëlee waxi Omar boobu nga jëriñoo ko muy lan xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni dundum ni dundam méttee fii diir wow koŋ xoolal yéefar yi la nekkoon ca muy ñoom César ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci ci euh, numtrat yi persan yi xoolal ni seen dund neexee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundam naqaree nii nga loolu boo ko xoolee doo amub dëkkandoor ngeen bàyyi xel bi bëgg wax bu baax doo amub dëkkandoor dëkkandoor ba di xëy ci caay-caay di gontu ci caay-caay ba neexu ba kanam rek la topp te ndaxam day xéewal yaa ngay yokku rek xéewal yi day yokku rek waaye moom daal bakkanam ci lay xëy ci lay gontu lépp luy lu ñaaw ma nga ca ay xéewalam di yokk rekk yow nag ngay dem ca jàkka ja di julli di sonn di woor waaye daal dafa mel ni àdduna moom danga koy gën di ñàkk rek mbokk yi loolu mën naa jaaxal ku xamut lii àdduna dafa peese wut ca yàlla lu toll ni mbaggum yoo yoo yoo tuuti na trop waaye ndeke suñ jëloon àdduna di ko gam-gam leeg àllaaxira gam-gam le mooy mooy lan euh, maanaam di leen compare ñoom ñaar comparer àdduna ak àllaaxira nga gam-gam le àdduna ak àllaaxira àdduna buñ ko gam-gam leeg àllaaxira na ko àllaaxira ëppee na ko àllaaxira ëppee moom àdduna raw na fuuf yow mu jëloon adduna mi di ko gam-gam leeg mbar yoon adduna ku ci xam ci ñun fu mu tàmbalee fu yem ak a yaatu waaye li muy yaatu yaatu àllaaxira ëppee na ko nu raw ni àdduna ëppee mbaggum yoon kon a kon fii du dara comparaison bi loolu rek la lay jox moo tax suñ borom subhanahu wa taala yow mi jëm ci moom danaan la ah yoon wi neexut de moom bokkul ak ñun nit ñi nga xam dañoo bëgg suñ mbooloo boo ñëwee ci moom mu lay legg leggal pour nga agsi loo nekk mu wëcc la ca booy naan sàngara mu ne ah na bokk ci mbooloo mi rek da koy yokk ko nekk am njaalokat sax mu ne na ci bokk rek ndax man ñun mbooloo mi rek lañ soxla yàlla melut noonu moom lépp suñ borom melut noonu moo tax moom danaan la boo boo laggee jëm ci man lagg jëm si ci man waaxu wut si ma ah duma la neexalal yoon wi de ndax dama xam li ngay wut si ci man nam tollu moo tax danaa la naqarilal sa adduna loolu jàngkati alquran xale yi mën nañ ci indi laay yu bëri wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i mu nga mag ñeet xale yi soo bàyyi woon laay bi ñëpp àggale mu nga yàlla ne la yoon bi ngay jaar jëm si ci man nag lii laa fa teg lan alxawf muy loo xam ne maanaam ay doole yu mag yu lay terroriser di di def ci sa xol bi ak ragal pour nga dëpp moo tax jëm ci yàlla yombut alxawf fi mu ne boo nee bëreet rek wuti sa borom iblis ak képp ku ànd ak moom te ñooy major majorité ñoom ñooy majoritaire ñépp nag danañ door pour terroriser la ngir lan nga dëpp euh, kon jëm ci yàlla yombul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga ba muy woote ca Màkka ba mu tëbee ne dama leen di woo ci laa ilaha illa benn mag nee na ko ah ma teen ko teg ci suuf bi yomb du yomb de kaddu di génn képp yàlla yor ko ñi ànd ak seytaane ak bakkan kenn du la ci déglu te ñëpp a ci sa kaw innaha la kalimatun takrahu al muluk keneen ke ne ko isan tuxaaribuka al arabu yàlla subhanahu wa boo laggee jëm ci moom nee na la ah képp ku dëng daal danaa ko xirtal ci sa kaw ñu lay tiital wal danaa la xiifloo de nga amoon mu xëy xëy amatoo sa njaboot daal lekk ba suur nga xëy xëy lu leen suur sax mënatoo koo am yoon wi jëm ci yàlla kat suñ boroom nee na nii la mel wa naqsin min al amwal nag ya di wàññeeku nag ya bitig ya di wàññeeku ñu naan ah moom day mu ngi perte mu ngi des wal anfus njaboot ga la waroon di wàññeeku wa samaraat nga bay mbay ma ñàkk antu yàlla kat lii la dig ñi jëm ci moom loolu dafa war a leer ci bopp yi nga ne ko nangu naa yii yëpp par ak li may wut si ci yow mën naa koo surmonter pour jàll ak si ci am li may li may wut si ci yow muy sa ngërëm ndax xam naa ne ker bu ma jotee sa ngërëm mu fàtteloo looma lii yépp mhm. mu nga ñàkk soloog àdduna laa waxoon ci lañ toll woon moo waral suñ boroom di ko nëxal di ko méttil moom àdduna ci kanam ay gaayam lu hadis ba waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne addunya sijnul mu'mini wa jannatul kaafir adduna gii kat yàlla mi ko bind nee na kasoog jullit la kasoog jullit la de ndax soo bëggee laal ñu ne ah lii kat yàlla bëggut ko nga nga arrière ñu dénk la alalu réew mu bari lool nga mën caa def lu la neex lu la neex nga tibb waaye boo bëggee laal benn auto interdiction bërëb ci sa biir xol bi ne la bu laal safara la dootoo ñemee laal loo moomut bànneexi àdduna yi nit ñi di sañsewu di ca dem diina ñëw ne la bokkoo ci pecc maag sabar yaag baal ya ak baar yaag boîte de nuit say morom rek ka dem di fa fanaanoo seen bakkan diine ñëw ne la ah bare na la la route bokkoo ci bi maanaa tëj na la ci bànneex yu xaram yëpp bokkoo ci bokkoo ci bu ko defee boo def jullit te dëggal sa njullit da nga naan wax nga dëgg bokkuma ci yaa ngi ànd ak sa auto interdiction boobu rek sa conscience religieuse boobu rek lépp luy lu xaraam rek bu la alerte nga taxaw doo ko ñeme alhamdulilah ngir lan danga naan yu yi bànneexi àdduna yii kat du ma jaral ma ñàkk bànneexi àllaaxira yu rëy yële lu tollul lu tollul ni mbaggum yookat du ma yàqal loo xam ne ëppee na àdduna gii lu raw ni àdduna ëppee mbaggum yoo doo fi gis lu la ko jaral moo tax feeg yaa ngi mën a sàcc